di len ziar bu baax di len dalal yeena ngi fi ci barab bu tedd barab bo xam ne barabu Serigne Touba la man nañ ko wax ndax mënee su taw tuddu histoire Serigne Touba ci waxe sun mbacke Bawal kon yeena ngi mbacke fi ci bi bu ci bu ci tëkk moy mbacke Bawal fi la Serigne Touba gane aduna lolu ku nek xamna ko du lu ñuy warante fi la gane àdduna yit it wut gox ci biir gox bi ñuy wax bi fi la fi la Serigne bi gane àdduna Mbacke Bawol ku ne xam na ne maam xaram Mbacke mi maamaat sëñ bi mi maami maamaat sëñ bi moo ko moo ko sënc moom la ko dammeel joxoon waaye maam xaram moomu comme ni ñu ko xam ni koy baaxoo di wax moom wut Mbacke ak njabootam la fi dëkkaloon ñoo fi nekkoon loolu ci la sëñ Mor Anta bi nga xam moom meññi sëñ bi ci la amoon kër fii ba yàlla dogal sëñ bi feeñee fi kon loolu mën na si wax histoire sëñ Tuubaa te tudd tuddee si loolu ndax ku baax ku nekk am na dëkk boo xam ne fa nga fa nga ganee àdduna loolu titre la bu mag ci ci dëkk boobu kon Sëriñ Tuubaa fii la ganee àdduna fii tamit la njëkk a gàmmu gàmmu gi gën a siiw fii la ko njëkk a defee la ci gën a kéemaane mooy ba nga xamee ni sëñ Mor Anta Sali noppal na xam nga maanaam jamono ji nga xam ne imaam Mabou Diakhou Ba woote woon ne xare ñoom ñëpp ñoo demoon fekk ko foofu Saalum ba nga xamee nag ñibbisi nañ sëñ Mor Anta Sali sëñ bi moom mës a taxaw ak waajuram ndax da ko teeloon a aw ci daara ji sëñ Mor Anta Sali ne xam ne université la woon daara la woon ju mag si waaye sëñ Tuubaa teel koo teeru ci euh, aw ci daara ji di di yër njàngale mi di taalif di di jàngale ba yàlla dogalee sëñ Mor Anta Sali noppalu sëñ bi toog na wax nañ ne mat na at walla du ko joge mu doog a woote wooteem bu siiw boobu nga xam ne nii ca la waxee ne képp koo xam ne nii jàng xam-xam kese kese moo la taxoon dëkk moom mën ngaa seet beneen jànguwaay koo xam ne nag li ñu nekk moom nga bëgg a nekk ca mooy alhimmatul oliya mooy pas-pas mën ngaa toog ci niñ koy nettalee ñu si bëri dañoo daal di dem ñu si des toog fi ñu denc sëñ Bousso bi nijaayam sëñ Bousso bi nga xam mook soxna Jaara ñoo bokk ñoo bokk ndey ak baay foofu la kër gi sëñ Tuubaa nekkoon foofu la sëñ bi sampoon këram di kër goo xam ne nii bëri xew na ndax sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana moom lay melal kër googu naan boo gisee yo sëñ kër sëñ bi daa mel ne yoonu marché daa mel ne yoonu marché ndax nit ñi nit ñi daggee rek wuti sëñ bi muy ay njëriñ boolami njëriñ kese sëñ bi ci moom moo waxoon na ni allahu yansuru ni wal xalqu tarbauni fil bari wal baxri zanafin bila dararin fu ma toll rek nit ñi ndax damaa yore njëriñ ci amul benn lor moo tax fu mu mës a nekk rek boolami dañuy fàbbe wuti ko kon loolu mi xewoon ci kër gu moo tax sëñ Mouhamadou Diop ne yoonu kër gi daa mel yoonu marché am na ñoo xam ne day ñëw di jëbbalu am na ñoo xam ne yittee àdduna a ñëw am na ñoo xam ne ni maanaam joxe seen i addiya ak lu ñu am di ko indil moo leen tax a dëkk am na ñoo xam ne di muus luñ mos lu moo leen fay tax a ñëw waaye ku si ñëw rek sëñ bi fajal la sa aajo. Sëñ Tuubaa nag eh, niñ ko xamee moom daawul wéttalikoo nit ñi li koy nit ñi di jubal yëpp tamit daawul wéttalikoo suñ borom tabaaraka wa taala moom daan wéttalikoo moo tax fu mu mës a nekk tamit bu fa nit ñi bëree moom saa bu ci soxlaa boo xam day daal di beddeku daal di dem feet fu wéet. di fa di fa di fa jaamu di fa jaamu yàlla di fa taalifee ndax jaamu yàlla bi mu soxla ak temps taalif bi muy bi nga xam moom la baaxoo di ko defee faw mu am fu fu dal moo tax nag mu tànn fii nga xam ne daanaka xaw naa jege kilomètre fu la daan jóge ci kër gi topp àll ba ci ba ci ba ci garab gi taatu garab gi fii la fii la defoon am baasam toog fi di fi di fi di fi taalif téeram bi gën a siiw nga xam ne nii bokk na ci téere yi gën a siiw muy Masaalikul Jinaan fii la ko taalifee ci ron garab gi fii la ko ànd koog taalibe mu mag boobu sëriñ bu Buso ñoom ñaar ñoo ko taal sëriñ Mbàkke Buso sax bi muy nettali wax na ne sëñ bi lu mu mas a taalif rek daf ko koy jàng jàngal ndax ah, gannaaw sëñ Tuubaa na kenn gën ko dégg téeru Masaalikul Jinaan ndax sëñ bi lu mas a taalif rek daf koy jàng noonu la ko toppee ba téere bu yegg wax nañ ne fii def na fii lu mat juróom-ñeenti weer wala lu ko ëpp fii ci ci garab bi nga xam ne saa su xëyee rek fii lay ñëw yend Euh, fii tamit fi la tàggatee sëñ Mbàkke Buso sëñ Mbàkke Buso ku ne xam na ne boo demee ci mbindum sëriñ Basiir Mouhamadul Basiir moom sëñ Tuubaa mi ngi wax ne sëñ Mbàkke Buso moo koy nettali ne ko maak sa waajur yi am na jamono yoo xam ne nii def nañ fi jamono bu yàgg boo xam ne nii vingt quatre heures ba vingt quatre heures kubéeru soxtala ndox ak tubb loxo cere braaye moom la ñuy jëfandikoo ba vingt quatre heures rek sëñ Mbàkke Buso wax nañ ne ku am kattan la woon waaye mujj gi mi ngi nettali sëñ Basiru naan ko dem naa ba mënatuma weesu loolu ci lekk ak ci naan su ma ko weesoo rek am jafe-jafe ndax sa waajur moom a tàggatoon ci loolu kon mën nañ ne sëñ Mbàkke su moom fii la ko sañ bi tàggatee ba mu fii la fii la ko defaree kon mën nañu mën nañu wax sax loolu su ko defee nag kon loolu mooy loolu mooy loolu bokk na ci cosaanu barab bi waaye Sëñ Tuubaa tamit tànnut barab bi rek par hasard ndax barab bi wax nañ ne Cheikh Omar Fouti yi ba nga xamee ne mi ngi wër wëram yooyu dikk na fii woo mag ñi dajale leen waaye fii la leen dajale woon di leen junj dikkuk Sëñ Tuubaa Cheikh Omar Fouti di leen xamal ne Sëñ Tuubaa dina feeñ jamono fa mbooleem gox yu nekk nit dina fa jóge ñëw di ko fi seet si wax nañ ne ci at moom sax ci la sëñ bi gënee àdduna kon bu sëñ bi gënee àdduna ñëwaat demaat ba dellusiwaat jëlaat barab bi di ko di fa kon tànn def ko par hasard kon motax fi fii seigne touba la euh bi nga xamé nak li xew xew na seigne bi def na ñaari at ci mbacke bol gi di def nonu gannaaw bi la fi joggé nak dem seigne ci Daaru def fa ñaari at wat dar salam dem seigne ci Touba ba nga xamé yoy jamono yi xew na ci teunk rek seigne mbacke bu so mo del ci barab bi ñew ba ci garab gi tek ci loxom tedlu bobu daal ne fi de maag sama garab gi day nga ni maag sama waji bax fi lañ daan tek fi lañ naan nek di fi jaamu yalla seigne bi di talif suñ mbàkk bu bi nga xam ne moo rëdd jumaay Touba def ko ba mu xibla moo rëdd jumaa ji ba mu ba mu xibla daal fi indi njabootam sëriñ Mawlaay Bousso indi fi sëriñ Njaaño Bousso mi ngi sama waajur indi fi sëriñ Abdou Salaam mi nga xam ne mooy waajuru sëriñ Samba bi ak seen mag ak magi taalibe yi nga xam ne ñoom la leen boolee ñoom ñoo wër gox bi ñoo wër barab bi ndax barab fépp foo xam ne barab sëñ Tuubaa moom daa ñaanoon yàlla ne samay kër yëpp dama bëgg nga def ko juma ay jàkk jullikaay moo tax sëñ ci xam gi mu xam sëñ Tuubaa ak xam gi xam sellaayu barab bi moo tax mu def ko rëdd ko def ko jàkk teg teg fi njabootam ñu fi nekk di ko saytu di dundal barab bi ci anam bi nga xam ne mooy yàlla ci bépp fépp foo xam ne barab sëñ Tuubaa la ba nga xamee ni yàlla dogal na bu mu dem ba ci jamono yi sëñ Abdou Salaam Buso moom moo joxewaat ndigal ci taalibe bu mag bu ñuy wax Abo Sall ne ko léegi damaa bëgg barab bi ñu def ko jumaa jàkka rek la woon waaye damaa bëgg ñu def ko jumaa ci lañ ko yaatale ni def ko jumaa di ko di fi di fi jaamu yàlla. Euh, fii comme ni ma ko waxee maanaam bërëbu sëriñ Tuubaa bërëbu sëriñ Tuubaa ki fi nekkal sëriñ Tuubaa rek moom la ñuy déglu ndigalam bi nga xamee ne ni ñi ngi tabax jumaa ji ba àgg ci garab gi dem boobu alxaaji Mouhamadou Amin Baara مو سيدي محمد الفاضل مو في نيكون خليفه دم نانتي موم ساكون ديغال خمال كو خم فك نا مو خم كو واي ني ليرال كو جي ماجي دال داف دم بو ورا امبو غراب ليغي نك نيت ني داف داخ داني جندي غراب دي ولا مون ني ديدت دونك كين كو جندي دا نين كوي واني بام خاتي جور جاك ني نين بايكو جي داخ ام سولو لول تي الاسلام مان كوي فرال دي واخ سو تي جمعة يونتبي صلى الله عليه وسلم مدينة دا نغا فك ني فيغا خامني محراب نيكون بي ني ديفي يا تالات جمعة جي فا باي dañ ko bàyyi dem ba ci kanam defaat beneen mihraab bu tolloog moom waaye bu ñu waxaat jëmmi bu njëkk bi moom dindi wuñ ko loolu jeexit la kon lii loolu nag lañ jublu jublu bàyyi ko fa pour di raay ak yooyu waaye dañ ko fa bàyyi pour ku dëkk fi xam ne fii kat barabu sëñ Tuubaa la woon te lii firnde la ci wane ne ci garab gii la sëñ bi nekkoon waa kër sëñ Tuubaa sax yi téwoon na leen noonu loolu ndax sëñ Suwaybu radiyallahu anhu daana fi yón mas na fi yónnee di laaj ndax garab bi am na partie lu ci des luy dund fekk dana ne bu fekkee am na tuuti lu ci des luy dund dafa bëgg abone benn robinet boo xam ne dafay nekk muy toq ndox ngir ngir ngir muy dund kon loolu kenn du ko dindi symbole la boo xam ne nii dañ ko fiy bàyyi ku ñëw comme ni ngeen dikkee tey yi ñëw fekk ko fi xam ne fii kat garab gi fi la Sëñ Tuubaa daan toog di fi taalif def na fi juróom-ñeenti weer gox bi goxub Sëñ Tuubaa la comme ni ma ko waxee fii la gënee àdduna gàmm gi gën a siiw fii la ko defee fii itam la seex Omar Fouti dikkoon di di wane ak dikk Sëñ Tuubaa moo tax daana wax ne Mbàkke bokk na ci dëkk yi neex ndax yu mel noonu yëpp yooyu yëpp ci daje. kon ci tënk rek fii daal mooy barabu Sëñ Tuubaa la ñun dañ fee nekk di jéem a roy ci mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di dundal barab bi ñu kon nag bu ngeen fi dikkee yéen waa Dakaractu wax dëgg yàlla loolu danañu danañu neex lool ndax bëri na murid yi ak taalibe yoo xam ne nii xëy na umpale nañ barab bi lool waa umpale nañ ko te bërëbu sëñ Tuubaa boo xam ne léeg-léeg nga gis fu ñuy màggal ak ziyaara fekk sëñ bi dafaa jaar rek julli fa ñaar rek waaye fii wér na kéng ne sëñ bi juróom-ñeenti weer def na ko ci bërëb bi fii kon bërëb bu miin sëñ Tuubaa la bërëb bu sëñ bi yàgg noote la kon bu ngeen fi dikkee ngir xam lu ngir leer lu wax dëgg yàlla loolu dañuy dañuy neex lool ñu ngi jàllale kàddu gi rek jox ko euh, sëñ Moussa Mboup mi mu àggale li nga xam ne moo ci des di leen sant waat di leen gërëm di ñaan yàlla màggal gi ñu def ko ci jàmm Euh, képp ku fi dikk sa aju faju ni ñu fi wax yàlla na ko fi yàlla musal ci ñëpp ba ñëpp delluwaat ci jàmm ñibbi ci jàmm ñi lépp dajee ngërëmal suñu borom tabaaraka wa taala ndax moom la ñuy sàkk maa ngi leen di sant leen a ko